asalaamaaleykum mbokk yi tey la altine fukki fan ak ñaar ci rabiul axar muy weeru rakki gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaa bi salallahu alayhi sallam dëppoo juróom-ñaari fan ci weeru novembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñaar fukki fan ak ñaar bokkul ci lim yu fàtt lim bu rafet la kon ci altine ji rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ko ca watu wala ko ca daloo altine ju nekk nag sunna la ci ko man mu woor ko ñaanu bis bi yow sunu boroom nun dey gëm nañ la yàlla na nga nu jéggal sunuy bàkkaar yàlla na nga nu musal ci mbëgalum sawara rabbana innana amanna faxfir lana dunubana wa qina adaaban naar rabbana innana amanna faxfir lana dunubana wa qina adaaban naar xadiisu bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sawara si seenum noon la bu ngeen nammee nelaw na ngeen ko fay xaddis bi buxaari ak muslim nettali nañu ko qaala rasulullahi salallahu alayhi wa sallam inna hadihi nnaara innama hiya aduwun lakum fa ida nimtum fa atfi fa atfiuha ankum buxaari wa muslim waxtu julli yi suba waxtoon dana tàbbi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 jant bi dina fenk juróom-ñaari waxtu yu tegal ñetti simili di so juróom benn waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen